rafetlu ni ñuy àndeek ñun jotaay bi rafetlu seeni ñaan rafetlu itam topp gi ak lu waxtu wi teel teel ñaare saa yuñ noppee ci émission bi rek wax dëgg yàlla ngeen won ñu ne yéen a ngi ciy ànd ñun ba loola mujj doon loo xam ne day kawe lool suñu njort day kawe lool suñu njort ndax it wax dëgg yàlla kuy wax ku ne ku ko déglu sagal nga ko waaw moo xam nag euh, nu mu man di demee rek rawatina kilifa yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi yépp ñoo ngi leen di ñaanal suñ borom defal leen tawféex mu mel ne buñ masaane ñëw ba ci ay bis gi nekk ci fajaruk ajjuma ak euh, yu demee noonu danañ indi waxtaan woo xam ne mooy suñu bindu ñaan yi li tax loolu mooy dañoo yëg ne ab jullit daa war di ñaan boroomam subhaanahu wa jamono itam doon jamono joo xam ne nit ñi fonk nañ lool ñaan bëgg nañ ko lool waaye nag liñ ciy waxtaan ak ñoom ba orienté leen ci liñ war a ñaan ak niñ war a ñaane léeg mu jafe lool moo tax ñu beral ko ab bind ci ay bis gi boo xam ne fànn googu lañuy ñuy waxtaane dooroon nañ di waxtaane li ñuy wax ñaanuk yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ma wonoon la ne ñi gën ci mbindeef yi ci kaw suuf gënal ci suñ borom subhaanahu wa mooy yonent yi ma la woon yonent bu nekk ci ñoom mën naa laa indil foo xam ne wéet na ñaan fa boroomam subhaanahu wa te doyloo ko ci mbir ya waxoon naa la yonent yàlla aadama keroog ba mu lekkee garab ga baye ko dal dal ko fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim waxoon naa la yonent yàlla noox ba mu woowee waa dëkk ba ba tay ca woote ba toqi dafa tàllal ay loxoom ñaan boroomam rabbi laa tadar alal ardi min al kaafirina dayyaara waxoon naa la ne la keroog yonent yàlla nuux ba mu yettee gaalam ga dugg ca fastajaaba lahu fastajaaba allahu lahu fa ahlaka jamia man fi ardi min al kaafirin xatta walada nuux suñ boroom dafa nangu ñaanam ga ne ko danaa alag ñëpp alak mboolem ña nekkoon ci kaw suuf ba ca doomam sax da caa bokkoon ndax ba mu ne doom ji yéegal ñu dem ne woon naa la doom ji da ko ne papa baal ma yéeg ci kaw montagne mi rek parce que ndox nga wax ne moo ñuy alak bu ma yéegee ci kaw immeuble bi ndox mi du fi agsi sa aawi ila jabalin yaxtimuni min al ma xaala laa azima al yawma min amrillah illa man raxima wa xaala baynahuma al mawju fa kaana min al muxraxin waxoon naa la ne la yonent yàlla ibrahim alayhi salaam góor gu màgg googu nga xam ne moom la suñ boroom ne maa ko def mu nekk sama xarit ndax dama koo nattu jaar ak moom fu metti jaar naag moom ci ñu jël ko sànni ko ci biir aw sawara moom ibrahim dugal ko ci mbaq guuta mbaay ko ba mu xiir ñu ne ko wurru ci biir sawara wa ibrahima dugg ci biir sawara wa te taxul mu weddi boroomam waaye mu won yàlla ne ko yaay ngand boo ma seetaanee ba ma lakk sa mbir la waaye man wéetal naa la ba noppi moo tax keroog bañ ko guuta mbaayee ba koy sànni malaaka yee ne ko ñaanal sa boroom ndeysaan Ibrahima dana leen xam gim xam sama xaal doy na sëkk ci man ma di ko ñaan waaye teewul nag buñ ko jëlee natt ko ci wàllu ñaan gis muy lu rëy ndax ñaan gam ñaan ca Makka ba nëgëni ku fa dem xam ne ñaan ga nangu na daa waxoon ne rabbi ijhal haada albalada aaminan wajnubnii wa baniya an nacbuda al asnaam ndeysaan yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma dëkk bii di màkkatal mukarram mu nekk dëkk bu wóor dëkk bu wóor boo xam ne bu fi kenn tiit agressé bu fi kenn tiit ñu tafu ko bu kenn tiit ñu dajji bitigam waaw bu fi kenn tiit ñu def ko nag su dul noonu te nga musal ma man ak sama doom yi nar dëkk dëkk bi ci ñuy jaamu xiram ñaan nga yàlla nangu na ko kon ñoom yonent yi sës ci seen borom subxanahu wa taala gannaaw ñoo doon ñaan yàlla asama ak yow moo tax imaam ibnu kasir rahimahullah buy firi aaya jooju day wax ne wala xad istajaaba allahu lahu moo tax boo xoolee dëkk ba suñ borom ne ko nangu naa ko xoolal yaa doon ñaan ne dëkk bi na nekk ijhal hadha baladan aminan suñ borom ne ko awalam yaraw annaa ja'alnaa xaraman aminan man yàlla maa def dëkk bi mu nekk barab boo xam ne barab bu wóor la bu am sécurité la yonent yàlla ibrahim ci ñaanam yooyu waxoon ne rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin xayri zi inda baytikal muharram yàlla rikkuwaay maa ngi lay ñaan ndax man day maak sama njaboot dañoo dëkk ci barab boo xam ne du barab boo xam ne dañ fee mën a bay kon yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma meññet mi am ci àdduna si yépp ñoom ñu ci jot seen wàll ku dem màkk xam ne ñaan googu nangu na kon mbokk lépp loo bëgg ñaan ko sa borom dana la ko may loolu rek laa bëgg a jàngale ci loolu ma lay indil ñaanu yonent yi moom itam boo demee ca fiir ba dafa am aaye juy firi aaye jooju wa qad istajaaba allahu thalika kama xaala wa qaalu inna tabbihi lhuda macaka nuqattaf min ardina awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi samaraatu kulli cheyin risqan min ladunna ndeysaan suñ boroom moo def kon tàggat ko jàppandilal fa lépp loo xamante ne am meññet la mu ñëw fa jaara ci ñaan goog nga xam ne moom la yonent yàlla Ibrahima ñaanoon foofee kon suñ boroom nangu na ñaanam ga ci xaritam boobu ndeysaan yemut ci loolu waaye yonent yàlla Ibrahim dem na ba nekk mag bu doon ko màggat nga ne tàmbali naa màggat léegi tey ñu ne ah kii kat weesu na fu mu mën a amee doom kon yow mi toll ci sa digg ndaw te amoo doom ñaan ko sa boroom Ibrahima de demoon na bay am lu jege téeméeri at door a am doom ndeysaan suñ boroom nangu ñaanam mu sant suñ boroom nag wax ne alhamdulillahi alladi wahabalii ala alkibari ismaila wa isxaq inna rabbi la samiu du'a ibrahima nee na maa ngi sant sama boroom mi nga xam ne moo ma may waaw moo ma may ci coobareem tam neex ko te fekk bi may may ma doon ko màggat mu may ma doom ji ma tudde ismaila ak isxaq sama borom de kuy dégg ak ñaan la waaw yàlla kuy dégg ak ñaan la kuy wuyu ku ko woo la annahu yastajibu liman daahu ibrahima moom buñ jëlee doomam ji nga xam ne mooy yàquba ab sëtam la alayhi salaam waxoon naa la ne bam ñàkkee yuusuf ca bindub démb ba ba may waxtaan ci jëllale njàq na tiit na am na mettit lool ci xolam waaye dafa ñaan rekk wa tawalla anhum wa qaala yaa asafa ala yuusufa wabyaddat aynaahu min alxusni fa huwa kasiim ba mu ñàkkee rakki yuusuf ja di benyamin teñ tuumaal ko naanukaayu buur ba ne moo ko sàcc ci ay pexe yuñ teg faraja'u ila abihim wa axbaruuhu yaquuba lam wax mooy bal sawwalat lakum anfusakum amra fa sabrun jamil asa allahu an yatiyanii bihim jamica innahu huwa alcalimu alxakim wa tawalla anhum wa xaala ya asafa ala yusuf wabyaddat caynaahu min alxusni fa huwa kadim xaalu tallahi taftacu tadkuru yusuf xatta takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin waaye qaala innamaa askuu bassii wa usnii ila allah wa alamu min allahi ma la taalamuun door a wax nag ne yaa baniya idhabu fa taxassasu min yusufa wa aqi wala taycazu min rawxillah innahu laa yaycazu min rawxillah ila alqawmu alkaafiruun ndeysaan yonent yàlla yaqub alayhi salaam ab yonent la keroog ba doomam ya jëlee yuusuf mi seen rak sànk ko mu am ca am tiit boroomam la ko delloo rakki yuusufa ja ñu ñëwati ne ko sànq na mu am ca am tiit boroomam la ko delloo wax ne dinaa ko muñ muñ gu rafet waaye daal di ñaan boroomam nag ci mu indil ko ñoom ñaar ñëpp delloowaat yàlla lépp waaye wax doomee ne leen ñaan leen te ngeen wëri leen te bañ naagu nag ci yërmande yàlla waaw ne kii naagu ci yërmande yàlla kenn gënu koo doon ab yéefar bind boobu day dañ ciy jàng yonent yàlla yusuf alayhi salaam kenn du wax ñaanta te boolewoo ko ci ndeysaan ndax ba nga xamee ne ma ngi ca kër njaati géem la ca Égypte ñu jaay ko ko mu jënd ko yor ko ca kër ga may ko kado jabaram ne ko amuñu doom maa la jëndal ngóor sii ca marché ba ndaxub taaram ak rafetaayam ak siwliiseem nañ ko jàppe doom kon xëy na bu màggee amal ñu njariñ yusuf nekk ca kër ga ab diir mu mat waxambaane ndaw sañ ko mayoon ne ko ñu jàppe ko doom moom fas ko yéenee jàppe leneen lu dul doom ndax da koo nopp nee na nee naay daal di tàmbali nag di ko pernjaayoog di ko lalali pexe pexe mu ne mu lalal ko ko te yusuf moom ab yonent la fa sud yéenee jàdd allahu akbar fa sud yéenee jàdd moom lu ndaw si rafet rafet ak lu lum ko per njaayu per njaayu ak lu mu ko man di jaay Yuusuf su ko yéenee catal benn bët moom suñ borom ne nag danaa ci jàpp moo tax mu ne lawlaa an raha rab bi waaye ci ñaan Yuusuf ba pexe naa takarnaasee dëkk bépp di ko fu génn ko taaram ñëpp di ko yéem Yuusuf dane yàlla mooy la day dugg ci kaso bi sax moom ma ko gënal suñ borom ne ko comme yaa ngi ñaan nag ne kaso bee la gënal nangu naa ñaan ki moo tax bul jaaxle mukk ba ne sama dund gi dee ko gën ay waay yàlla rey ma déedéet bul ñaan loolu ñaanal rek mettit wi tegu ci sa kaw dañ lépp loo ragal te bañ mu dal la bul kafe di ko ñaan sa borom lépp loo bëgg nag ñaan ko ko te xam ne am na ko te da koy maye te sawar na ci maye ko te digge na maye ko ba tàyyi moo tax rabbi rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al jahilin waaw Yuusuf nee na suñ borom kaso de moom a gën lii ñu may woo waaw nga xam ne jigéen ñi ngi dagg seen loxo yi ndax ne damaa rafetee soxna seen may tëj ci biir néeg yi naan ma naan ma pare naa pour ñu séq lépp te kenn du ko yëg ay waay yàlla loolu day dem ca kaso ba bañ koo fekkeeti moom a ko gënal soxna seeg may tëkku ne su ma jotewut ak moom dinaa dee ci kaso bi yàlla dem ca kaso baa ma gënal suñ borom ne ko dégg naa li nga wax daal di nangu ñaanu Yuusuf ga fastajaaba lahu rabbuhu daal di soppi pexe jigéen ña pexe ma jëm ci tuumaal ko ba ñu yóbbu ko kaso ndax innahu huwa samiul alim suñ boroom kuy dégg la waaye kuy xam la boo ko ne yàlla may ma yàlla xam na may ma xam na lu muy tekki nga ne ko yaa rabbi yàlla xam na yaa rabbi lu muy tekki nga làkk ko ci weneen làkk yàlla xam na làkk wala muy tekki innahu huwa sami alalim yàlla day dégg lépp lu mën di doon waaye yëmut ci dégg ko waaye alalim daf koy xam du ko fook du ko nattable waaye lu mu xam lay doon moo tax alayhi salaam yusuf moomu baxdama raawdathu imraatul asis ala nafsihi faatazama billahi taala wa qaala ma asa allah keroog bi nga xamante ne buur euh, euh, soxnas buur bi tëj na buntu ya ba wéet yuusuf fas yéenee daw dal ci kawam yuusuf joteeg moom yuusuf foofee ba buntu ya kenn rek la woo kenn ko wuy si it mooy yàlla ndax dane làqu naa ci yàlla yàlla ne ko làq naa la ndeysaan yàlla ne ko làq naa la keroog ba nga xamante ne ndaw sa dajale na jigéeni dëkk ba imraatul asis turaawidu fataha an nafsihi loolu lañ doon waxtaane naan ah jabari buur bi de moo doon sàkku yuusuf kii daal moo ñàkk mu bëgg rek xale bu mu yar dem di ko sàkku ah kii de li ko dal séddut kii di ko mbambu rek mun leen da ngeen xam ne de li ma dal kum daloon it di yow kum doon yow di yow ni ko olof di waxe dajale leen ñoom ñëpp ngir ñu am ñoom it lum leen mën a jàppe bañ gisee yuusuf yéemu bay dagg seen loxo ba génnee dana leen fa zalikunna allazi na nii fii waaw lii de mooy li ngeen ma doon yedde wala qad raawattuhu a nafsihi faxtasam wala in lam yafal ma amarahu la yasjunanna wala na min assaaxirin man mii maako ko piir mu bañ waaye yàlla xam na ne dana def li ma ko digal wala dana dem ci kaso bi wala sax dana doon koo xam ne kuñ doyadil lay doon ndeysaan Yuusuf ne ko comme tudd nga baatub kaso xamoo ne dem ci kaso baa ma gënal li nga may woo suñ borom nangu ñaanam ki kon mbokk ab yonent ak encore di yonent yàlla yusuf ci digganteem ak boroomam ci yëkkati ay loxo di ñaan ku jaaxle ñaanal yàlla mu may la ku am looy ragal ñaanal yàlla mu dàqal la ko ku am loo bëgg ñaanal yàlla mu defal la ko jeex na kuy muslu làqul ci yàlla mu musal la ci yépp moo gën def sa pexey bopp da ngay sonn rek da ngay sonn rek beneen yonente ngi nii di yonent yàlla muusa alayhi salaam moom ci wàllu ñaan waxaala muusa rabbana innaka aatayta fircawna wa malaahu siinatan wa amwaalan fi lxayaati dunya rabbana liyudilluu an sabilika rabbana tmis ala amwaalihim wasdud ala quluubihim falaa yuminuu xatta yarawu alcadaab alim ba mu rek suñ boroom ne ko xat ujibat daawatu la suñ boroom ne ko demal ca Firawna waxeek moom Firawna di ponkal di seef de l'État yilif jamono yemut ci ñu wekk ko waaye daa dem ba bàkku ne maay yàlla Muusaa ne ko yàlla Firawna day jox nga ko mbooloo jox nga ko alal jox nga ko koom-koomu àdduna bépp ndeysaan allahu akbar moo tax ba Muusaa dogoo jëm ci suñ borom jëm ci Firawna te ñaan boromam dimbali ko suñ borom da koo dimbali wax naa ne ginnaaw yonent yàlla Muusa moo man a ñaan suñ borom mu defal ko Haaruna ab yonent suñ boroom nangul ko mu doon Haaruna Haaruna doon ab yonent lu ne nit war na koo mën a wóoloo ñaan boroomam ndax dara jaa ngi yem ci doonub yonent te Muusa nee na yàlla wutal ma ku ma wét li ci yoon wi te loolu bëgg naa mu doon Haaruna mii suñ borom ne ko def naa ko ko ndeysaan istajaaba allahu li Muusa alayhi salaam man maahu suñ boroom nangu ñaanu Muusa daal di alak firawna wa ahlaka firawna wa xawmahu nam ko alage mooy da labal da labal bu ma jëlaatee beneen yonent mu yonent yàlla ayuba alayhi salaam moom ku ko jël gis wàllu ñaan lu baree bari ayubaa ngi nii bi yonent suñ boroom di ñu ko nett li wax nañu wa ayuba id naada rabbahu anni masanniya durru wa anta arhamu rahimin ndeysaan yonent yàlla ayuba suñ borom da koo teg nattu ci xissa bu gudd ak la ko waral mu tawat tawat ju metti ba yaram way dagg di wadd waaye la mu wax mooy daa woo boroomam ne ko yàlla man dey maa ngi nii sama yaram wi loru ma doon ko tawat yàlla gis nga ma yaa ëpp yërmaande ñëpp fastajab naa lahu suñ borom nee na ñu wuyu ko ñu wuyu wooteem bi fa kasaf naa maa bihi min durrin daal koy dindi la nekke tawat ci moom wa aataynaahu ahlahu delloosil ko njabootam wa mislahum maahum rahmatan min indina wa zikra lil aabidin loolu nag yàlla am ko fi teg ko fi mu nekk ak fàttali ñeel mboolem ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi yàlla xel maa ngi ci ñaanuk yonent yi alayhi salaam seen diggante seen borom di la won ne nit ñooñu day kenn ku ne am na context boo xam ne ba mu ca tollee yaa rabbi la wax yàlla ne daal di koy wuyu fastajab naa rek ne ko maa ngi nii moo tax imaam ibnu rahimahullah ci aay yi bu koy tafsir day wax ne suñ borom subhaanahu wa day yi nga xam ne moo daloon yonent yàlla ayuba ci ay nattu ci ay balaa ci alalam ci ay doomam ci aw yaramam kaana lahu min addawaab wal anxaam wal xars yooyu lu lu nekk mu amoon ci lu bari maanaam amoon ay jur gu bari yoroon koom-koom mu bari amoon doom yu bari ba suñ boroom di wàccee nattu ya ca moom loolu lépp la ñàkk loolu lépp a ko woon ginnaaw waaye ba mu ñaanee boromam ba wér suñ boroom daf ko delloo si laat mën ngaa wax ne lu ëpp loolu ndax wa mislahum mahahum rahmatan min indina wa zikra lil xaabidin lil aabidin yonent yàlla yunus alayhi salaam buñ ko jëlee moom it ndeysaan lañ ca mën a jànge bari na yunus mooy borom ñaan ki ñaan gi jotoon naa ko fee jàngale xam na tey sax danaa ko baamuwaat ndax daa am solo ndax Yunus ci njàqare la nekkoon te ñii ci xat-xat bari na lool day sànn yonent yàlla Yunus mooy Zannun suñ boroom ak ñu koy nettali ci alquran ci saar wam tuddee yonent yi wax ne wa Zannuuni id dahaba muqaadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa fi sulumatin an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin suñ boroom nee na fastajabnaa lahu wa najaynaahu min alxammi wa kadalika nunjil muminin kon loolu mooy wane ne ñaan ngaa ngi fi ba tey yonent yàlla yunus ca gaal ga la dugg ci sa bu gudd ñu teg ko yeñ koy teg ba yëkkatee ko ca gaal ga sànni ko ca ndox ma jën ba wan ko ndekete biir jën wa ab kasom la bu ko yàlla war a tëj daa am lu ko fa war a jële nag mu boole lëndëmug biir jën wi ak lëndëmug biir géej gi ak tumuranke gi ne ci biirub dara yàlla ne ko wan na ko te bu ko reesal allahu akbar waaye la muy def rek mooy daal di woo boroomam lëndëm lëndëm yooyu mu nekk xat-xat yi mu nekk kiris yam nekk la muy metti metti yunus boroomam la daal di woo ne ko yàlla ku yow doo yàlla gàcce ngaalaamaa yow lii de yaa ko man lii de yaa ko man maa ngi lay xamal ne nag man Yunus ku la tooñ laa ndeysaan dama tooñ maa ngi bokk ci tooñkat yi suñ boroom nee na ñu wuyu ko wuyu woote ba musal ko ca njaqare yam nekkoon yàlla nee na nii nag duñ dañ mukk di ni musalee ñi nga xam ne ñoo gëm waaw képp ku gëm yàlla ne ci ay jàqare wala nga ne ciy jafe-jafe ne yàlla maa ngi nii yàlla ne la jéggal naa la ndeysaan kooku mooy yonent yàlla Yunus moo tax suñ borom ne bu du woon ak ñaan googu mu ma ñaan bàkk woow mu ma bàkk ma bàyyi ko ci biir jën wa ba àdduna di tukki laa ilaha illallah ba àdduna di tukki moo tax mu daan wax naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin laa ilaha buñ ko bàyyi ak ñaan la yow mi ami bor ba mënoo koo fay ni ci njàqare ba mbedd mi xat ci yow dee ko wax tey ñaan sa borom mu dimbali la xéewal goo fayee say bor leen nga fay ko waaw yow mi nga xamante ne dañ laa tooñ ba nga jaaxle dee ko wax léegi tey suñ borom defal la li nga bëgg ak lépp lu nit ki man di am rek waaw ndax li li li yonent yàlla yunus nekkoon noonu la mbir ma réye woon ci moom ndeysaan yunus ibnu mata alayhi nga xam ne suñ borom da ko yónni ci aw xeet mu woo leen ñu bañ féttéerlu ne ca weddi yàlla ga yonus génn mer dig leen am mbugal nag ne leen feek ñetti fan suñ borom dana leen wàcceel mbugal te ku ne xam ne ne ab yeneent moom du wax lu du dëgg daldi di génn dem ca montagne ya moo ko njabootam waaye suñ borom ne ko baax na mel ne mbugal ma daa yeex a wàcc fa zaama fa kaana min al fa xaama yunus alayhi salaam wa tajarrada min siyaabihi suma alqaa bi nafsihi bahri noonu la ko ibnu kasir tafsire aaya jooju faltaxamahul huut wa huwa mulim fa naada fi zulumaati an laa ilaha illa anta subhaanaka inni kuntu min alzalimin fastajabna lahu wa najjaynaahu min alxammi wa bu ma yemee ci yonent yunus moomu bu ñu yàlla mayee ñu dund ba ci ay bis génn ñëw ñu wéyal ko ñëw ci yonent yàlla suleymaan alayhi salaam yonent yàlla isa ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam dañuy gis ne kon ñaan gi may waxtaane ñaan farata la yàlla moo ne nañ ko ñaan yàlla moom danaan la may ma nee ma may ma ma may la te ku ma bañ ñaan ku ne ma jàppe la bi yéefar kon nañ koy ñaan jullil sa ñaari rakka ci waxtu wu ko dagana julli yëkkatil say loxo jabbatul li nga bëgg lépp ñaan ko sa borom te rafetlu ne te rafet njortu ci ne nangu na te jóg doxi say soxla insha allahu taala tawfiix rek nga ciy am laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimin yal nañu yàlla boole jéggal yal nañu yàlla boole suturaal yal ñu yàlla boole sàmm jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax ci ànd ak ngeen ànd ak ñun jotaay bi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu taxaw defal ñu jàmmee àdduna ak defal ñu suturas àdduna ak suturas àllaaxira Oustaz Alioune Sall egsi na moom la ñu yaatalal jotaay bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm boole ñu taxaw seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum.